mi ngi tudd mulku suleymaan mulku suleymaan nag ñi yëngu ci lasraar war nañu koo xam mu nekk jaaru bu baax lool sëriñ bi am na yeneen jaaru yu doy képp ku jokkoo ak moom dina la ca jox ay leeral sëriñ bi nag yàlla may na ko lool ci góor ñi nga xam ne dañoo tëlee maanaam ñi dem ba mënatuñu ak ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg seen bopp nee na saafara bi mu lay jox ci kaw cin ngay taxaw sangoo ko foofu ngay yëgee sa bopp kon jokkoo leen ak moom waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu seet ak wàllu wàllu kubbeekaay ndax ngit nit ki kat pour ngeen jëflante faw mu seetal la ba noppi te wàllu seet ak wàllu ñaan ak kubbeekaay noobit yàlla may na ko ci lool moom Serigne Khadim Mbacké général wàllu nopp boobee nee na képp koo xam ne da nga am sa soxna wala sa coro boo ne ko benn mu ne la fukk boo ne ko toogal mu taxaw bu ngeen jëflante dina dëppale seeni xalaat jubale leen boo ne ko toogal mu toog boo ne ko nañ dem du ca teg baat sëriñ xaadim mbàkke général yàlla may na ko lool ci wàllu lasraar sëriñ bi nag képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii nga ko mën a jotee muy 77 341 67 67 77 341 67 67 képp ku jokkoo ak sëriñ xaadim mbakke général yal na sa aajo faju laata ñuy door xibaar yi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté maanaam di leen gën a xamale ak application bii ñu naan Sofascore di yëngu ci wàllu tàggat yaram lépp luy xabaar soxol tàggat yaram rawatina football application bi da ciy ñëw moo xam mat yi daw en direct ak programme yi ni ngay def nag pour am ko lu yomb la da ngay dem ci commentaire yi wala ci description bi di nga fa fekk lien bi nga téléchargé ko su fekkee ci lien bi nga ko jaaree nag dimbali King Ouse et Ngary TV waaye lépp luy xabaar soxol tàggat yaram incha allahu rabbi da nga ca am xibaar yu wér te kon jaare leen ko ci lien bi ngeen téléchargé ko ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale bu Sénégal tey jii la ñu amal seen ñetteelu entraînement ngir waajal ñaari match yu ñu war a am mu soxal éliminatoire CAN 2025 Malawi la ñuy jàkkaarlool match aller la ak retour match aller bi vendredi di ajjuma la ñu koy amal match retour bi le 15 la ñu koy amal incha allah waaye ñaari match yooyu yëpp nag attaquant stade brestois bi du ca mën a bokk moom Abdallah Sima démb ñoo ngi leen di wax ni bokkul ci entraînement bi tey jii tamit bokku ca forfait na day dellu ca France ngir faju moom Abdallah Sima nañu ko ñaanal balaa yàgg mu wér. ñu jugee ci Abdallah Sima ak xabaaram bu naqari jël beneen doomu Sénégal kii mi ngi tudd Pape Ndiaga Ndigal ma nga woon ca Tëngéej football club. ndax doomu Sénégal bi contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee dañu ko dagg dafa am jafe-jafe ak club boobee ñu waxtaan dagg contrat bi leen lëkkale woon kon jamono ji agent libre la moom nag latral droite la jamono ji nag téqalikoo na ak waa Tëngéej football club kon jamono jii day wër club club bu ko neex mën na faa dem xaatim fa contrat ndax contrat lëkkaleetu ko ak waa Tëngéej football club. ñu jugee ci Pape Ndiaga Ndigal te di ko ñaanal balaa yàgg mu am contrat dem ca waa Villarreal ñoom nag ñoo ngi bëgg a miin centre de formation Kër Madior li ko waral moo di bu yàggu dara jëlee nañu fa ak gone gone gi mi ngi tudd Alassane jaata tey jii tamit jëlee nañ fa geneen gone gone gi mi ngi tudd góor a Mbaye latral gauche bu footballub Sénégal am ci moom yaakaar la 19 ans képp la am jóge na ca Kër Madior wutali Villarreal bu demee foofee nag dina fa fekk Alassane Diatta ak Pape Alassane Gueye nañu ko ñaanal mu bind taarix ci Liga e-sport ba moom góor a Mbaye ñu jugee ci góor a Mbaye te di ko ñaanal dem ca équipe national bu France ñoom nag suba incha allah dañuy jàkkaarloo ak Israël bu ñu sukkandiku ci Didier de mi leen di tàggat nag bokkuk Marcus Thuram ca match boobee lu ñuy seetaat lay doon maanaam bokkam ca match boobee wóoragul moom attaquant bi nekk ca Inter dafa am blessure bu xaw a ndaw suba mën naa am du bokk ca match boobee loolee la Didier Deschamps le tey jii bi mu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ñu jugee ci Marcus Thuram ak xabaaram bu naqari jël doomu Argentine bi tudd Valentin Carboni moom nag ma ngay football ci Olympique bu Marseille waaye kat équipe nationale bu Argentine dañu ko woowoon ngir match ñu am éliminatoire coupe du monde bi ñu war a jongante ci atum 2026 waaye kat dafa am ab blessure delluwaat na ca olympique bu Marseille waaye blessure boobee nag communiqué bi nga xam ne fédération bu arsantine bind nañu ko waxuñu ñaata fan wala ñaata semaine lay toog li wérte daal moo di doomu Argentine bi am na blessure te dina delluwaat ci olympique bu Marseille ngir fajo ñu jugee ci Valentin Carboni ak waa olympique bu Marseille ak seenub xabaar bu naqari dem ca waa ñoom nag juboo nañu ak doomu itali bi tudd Federico Gatti ngir mu yokk yeneen juróomi at ci contrat bi nga xam ne moom la am foofe ca Juve contrat bu gudd nag la fay am kon bu yokkee yeneen juróomi at moom mi tudd Federico Gatti nekk gone gu footballub itali am ci moom yaakaar jubo ci lépp am na li ci des moo di officialiser ko bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano ñu jugee ci Federico Gatti waaye këlëbam di yuufe duñu ko génna gum dañuy jël seen milieu de terrain bi tudd Coupe Miners moom nag dafa am blessure bu xaw a mitti lool loolee tax na sax match yi may waaja lim dina ko wuute maanaam du ca mën a bokk ngir jàppale waa yuufe muy bu yuufe di jàkkaarloo ak Lazio de Rome bu yuufe di jàkkaarloo tamit ak Stuttgart ba ca Inter de Milan match yooyu yëpp doomu Pays-Bas bi ñu naan Coupe Mainers du ca mën a bokk li ko waral moo di dafa am blessure bu xaw a métti ñu jugee ci Coupe Mainers ak waa yuufeeg seenub xabaar bu naqari jël doomu Turki bi tudd Arda Güler bu ñu sukkandikoo ci AS yéenekaay waa Fenerbahçe bu José Mourinho dañu ko bëgg te dàqu ñu nag àbb ko li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu jéem a waxtaan Barcelone ak waa Real de Madrid ngir ñu abal leen ko waaye loolee nag wóoragut Real de Madrid dina ko able am du ko able loolee ci sunu kanam la nekk dinañ leen ko toppal waaye AS nee na waa Fenerbahçe rawatina José Mourinho loolee képp la ñu bëgg jamono jii ñu jugee ci Arda Güler ak bëgg-bëgg boobe waa Fenerbahçe am ci moom waaye Real de Madrid duñu leen bàyyee gum ñoom nag bëgg-bëgg bi ñu am moo di bu ñu yeggee ci atum deux mille vingt cinq ñu am défenseur bu bees tàq le dix sport nag kenn képp la ñu bëgg mu di doomu France bi tudd William Saliba nekk ca Arsenal te loolee waa Real de Madrid xamal nañu ko waa Arsenal ndax gone gi li muy def mën na ko lool Real de Madrid liñ bëgg moo di saison deux mille vingt cinq deux mille vingt six ñu am défense bu wow koŋŋ ki ñu bëgg nag maanaam ki ñu def priorité du kenn ku dul doomu France bi te nee nañu noppi nañu ngir def ca xaalis bu bari su fekkee waxtaan nañu ak Arsenal Arsenal dëgëral lu ñu laaj noppi nañu ngir def ko ca ngir mën koo xaatimal contrat moom William Saliba loole le 10 sport moo ko xamle gaa ñi xabaar yi foofu la buuree